yóbbalu tey ji ñu ñu yendoog jàmm. RFM matin émission bi yee waa matin ñu dalal sunu gan Cheikhou Cissé salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaay président national bu UNACOIS yeesal nuyu euh, Mouhamed Alioune Ba mi ma fa yéene àndal ci euh, waxtaan wi euh, solo su waxtaan sax moo di la dund jamono ji biñ tukkee ci élection présidentielle. bu dimanche gi ñu weesu bu fal sax ab euh, njiitu réew bu yees di Bassirou Diomaye Faye euh, yow yaa njiital UNACOIS wax naa ko waaye itam bokk nga ci pacte national bonne gouvernance démocratique ba nga xamante ne secteur privé bi euh, teg nañ koy ci taabal bi ba doon woo sax ñenn ñi nga xamante ne ñoo di candidat yi ñu signé ko Bassirou Diomaye ci kàddoom yu njëkk yi nga xamante ne yëkki na ko ci gannaaw bi ñu ko falee njiitu réew àdduna ci seeraayu dund gi laata ñoo egg ci li nga xamante ne moom ngeen di xaar sax noo leen fas yéenee gunge njiit réew bu yees bi ci du seeraay bi dund parce que bu ñu fàttalikoo ci 2012 euh, am na waxtaan bu nga xamante ne seqoon ngeen koog Macky Sall laata moo jël dogalam yu njëkk. Hmm. Euh, merci beaucoup Sor. Hmm. Euh, sadid lisaani maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu suma xarit Alaaji Assane Gueye di ko siyaare ak euh, Babacar Fall ak Makumba ak ñi ci des ñëpp dama lay sant bu baax ci question bi nga ma laaj nii. xam nga secteur privé dañoo am beneen taxawaay si bien que Inaa ko waye sal moo tax ngeen woo ma fii mais plateforme boobu nga wax. Euh, dafa am importance à que dama ci dellu si war parce que dafa am organisation yoo xam ne ñoom ñoo daje def benn palaat plateforme pour parti politique yi signé ko bala ñuy dem ci élection yi lu mel ni CNES CMP MEDES ak CIS euh, bi nga xam ne tey Père Goudiaby bi moo ko jiite ak CDS ak CES chambre de commerce jàppoo mm-hmm. Jàppo Inakoa Yessal pacte bi bi ñu ko defee wacc ko def ko sama document suñu ci bari ci ñoom signé nañ ko bi nga xam ne yàlla dogal na yàlla bi nga xam ne mooy fal buuru fal na Basiiru Jomaay ki tetu réew mi eh, kuréel boobu gis nga def na benn communiquer boo xam ne signature conjointe la ñun ñëpp ñoo ci signé eh, ñaanal ko yàlla remercier ko félicité ko ci eh, ndam li nga xam ne am na ko li nekk ci biir texte bi yëpp itam ñu di ko ca ndaxte ku ne xam na ne eh, état dafay définir politique mais mënul du jaay du jënd liñ ko wax ci nag ci texte bi su fekkee jëfandikoo na ko pare nañ pour jàppale ko à tout moment fu mu nu wooyee dañu gis waaye may dellu si rek di la wax ne la sor wàññi ay njëg président yi ko jiite woon yëpp waxoon nañ ko hmm? waaye day lu jafe. ndaxte lu tax loolu lu nekkul ci sa loxo wàññi ko day jafe. mais defoon ngeen loolu euh, benn geste suma juumul en 2012 jàppale président Macky Sall bi mu see def nañ ci geste bu am importance mosu ci jóg toujours da ngay gis muy woote conseiller euh, interministériel di woose con conseiller pour ñi nga xam ne ñooy euh, yëngatu ci wàll woowu di di taseeg moom ngir di ko jàppale di ko jàppale suñu bopp pour que prix yi wàññi ko wante wàññi bi itam dafa am fu muy yem. wàññi bi du wàññi boo xam ne dafay profondeur parce que lu tax euh, commerçant bi nga xam ne day génni marchandise am di ko andi Sénégal état lum ca man mooy mu nekk prix conseil ci moom parce que li ñuy dundee dépendrewul ci ñun te ku ne xam na ne euh, dollar bi nga xam ne moom mooy contrôler li nga xam ne mooy sunu devise dafa yéeg di wàcc. donc en terme clair munoo leen def effort heure bi munoo leen wàññi. xam nga lu ñuy waxtaane la moom bi nga xam ne moom la yàlla jox réew mi tey sunu wooyee def ni nga xam ne ay prédécesseur am defoon nañ ko la ca suñu xalaat danañ ko wax waaye moom état mënul xëy xëy rek ne digée na danaa wàññi njëg mu def ko parce que mënu ko lu dul ay taxes rek la man te taxe wàññi yi dafa am fu muy yem duñ ko ko conseillé sax ndaxte am na loo xam ne lii bu ko defee de profondeur ci conseil ci taxe yi réew mi pour mu toogati day jafe parce que toujours moo xam ne ay taxe lay waxtu woo xamee ne danga koy wàññi pour que nga bëgg a dëggal waxu la nga diggee. buñ ca dëkkee sax nguur bi est que dana amati ay koppar ndax tax yooyee lay développé wala yooyu lay dugal ci yeneen euh, yeneen euh, secteurs yi. lam ci am ci ay tax su fekkee dafa dëkk ci wàññi su boobaa duutu am moom xaalis bu mu yore réew bi te loolu duñ ko ko conseillé li nga xam ne mooy gën euh, sorte mooy du loo xam ne dans l'immédiat lay am ci ni mu ko diggee dëgg la nag bu wootee danañ ko xelal loo xam ne li mu wax réew mi danañ danañ gis ne eh, li mu leen diggoon am na ci loo xam ne ñu ngi koy tàmbalee gis. à de quel nga jàpp ni. Euh, euh, mun nañ peut-être euh, xoolaat njëg yi ñu wàññi leen à partir de xam nga fi mu toll nii processus bi nga xam ne moom la président pré sortant bi defoon daanaka ñu ci prix conseil yi génnaguñ ci mais loolu dafa dugg asaka moom mu wax ne dana wàññi war dana wàññi njëg li ba nit ñi yëg ko loolu li ci li ci li ci li ko ciy dimbale rek mooy woote concertation boo xam ne bii secteur privé dañuy ñëw toog ak mu wax ko li nga xam ne moo mën a am mu bu ko defee mu digg ci la nga xam ne moom la mën a def parce que njëg loo xam ne nekkul ci sa loxo da nga koy jéggi te état du jaay du jënd gis ngeen ko ci li fi xewoon depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade ay magasin témoin ay ay ay ay Maître Sarr yooyu yëpp gis nga ko fii. mais mais njaay ci boppam dafa am ñoo xam ne ñooy habilité de le faire état dafay dafay dafay encadré. alimu su fekkee ne réew mi président bi li ñu koy conseillé moom mu dooleel secteur privé Sénégal su leen dooleelee réew mi dana wàññiku te moom du ki sonn waaye su fekkee ne bii lépp lu ñu am comme ressource dañuy indi secteur privé étranger jox ko ko mu mu buub ko dem. duñ jóg ci lii mukk état mënul wàññi ay prix lu dul mu dooleel secteur privé employé dana ko ko jox. dana ko jox loo xam ne aussi itam mooy gën waxtu nekk lu ñu am rek ñu wooyee ku ko def loolu daal duma ma ko ko conseillé li ma koy digal daal mu woo largement secteur privé waxtaan ak ñoom danañ ko xelal li nga xam ne yaakaar naa bu ci jaaree wàññi ko dina mën a am. te ay taxes am justement fa laa bëggoon yow. bu bu dee war koo jaar ci euh, di wàññi ay taxes. Hmm. Euh, doole itam secteur euh, privé bi. ci yan yoon. la ñu war a mën a jaar ba xëy na seeraayu dund gi wàññeeku. xam nga seeraayu dund bu bu bu bu wàññeekoo rek. dafa wàcc dafa fekk suñu devise bari parce que ñun dañuy dem toujours di ànd ak le président sortant di tukki yi ànd ak moom. mais li ñu gis ci loo xam ne war nañ ko rectifier mooy secteur privé étranger warul signer ak état directement ñun bi ñuy dem Riyad euh, Riyad tout récemment rek Père Goudiaby bi demoon na club de investisseurs yóbbu li mu yóbbu ci procès kenn xam nun ñii li ñu yóbbu ci procès kenn xam nun toll mais état Sénégal ci boppam li mu war a def mooy mooy superviser les deux entités investisseur bi nga xam ne étranger la ak secteur privé su ñu gisee projet boo xam ne bu rentable boo xam ne bu bu baax la état ñëw cautionné ko parce que ñi jógee bitim réew du ñu wóotu du ñu wóolu secteur privé Sénégal te état bi cautionné wu ko mais état warul warul liggéey ak directement ak secteur privé étranger te bàyyi secteur privé yi nga xam ne moo nekk ci. ci nekkal li ñu ciy def nag loo xam ne tàmbali nañ ko te duñu ko bàyyi ànd nañ def benn pacte boo xam ne dutuñu ci tàggalikoo ànd parce que séparation bi ñuy def ñun secteur privé moo nu andil lu nga xam ne état du ñu jox gëddaam ni ñu ko war a joxe te te ma ma ma wax ne ñoom ñun se ñoom seenu jëfin war na noo won ñun loo xam ne war nañ leen topp ca li ñuy def parce que euh, Bassir maa ngi koy féliciter de passage le président de la République su amee li mu am tey. coalition moo ko ko jox bi mu ko ko joxee mu dem ci réew mi réew mi jàppale ko mu nekk président ñun itam incha allah li ñu fas yéene def coalition la ñuy def boo xam ne bi secteur privé comme coalition dafa xew te ku ki ko defoon gis nañ résultat yi mu ko jox ñun itam dañuy def coalition boo xam ne duutuñu nangu mukk beneen étranger ñëw ñu di ko jox marché réew mi te nekk fi ndaxte ñoom bi ñu defee coalition dañ ko jooy réew mi fekk leen ci am nañ ci la ñuy wut. mu gagné réew mi yàlla na ko yàlla jox. ci wàllu coalition boobu la ça ça dépend parce que am na ay yoo xamante ni xëy na yéen amu leen man-man bi wala sa amu leen moyen pour def ko lan nga jàpp nii peut-être état bi war na leen gunge ci wàllu woowule su ko defee peut-être même étranger bu ñëwee duñu leen mën a dut. mais Aliouma am nañ man-man bi xam nga banque yi am na ci secteur privé étranger yoo xam ne bu ñëwee fii. seen i main libre lañu dañuy ñëw ak seen loxo yi ne banque yi banque yi ci mm. boppam moo leen di jàppale le Maroc par exemple banque yi Sénégal yi moo leen di jàpp état lu def mooy mu dimbale secteur privé Sénégal ci banque yi nga xam ne parce que am na loo xam ne état moo ko mën ay milliards su fekkee ne bi garantie yi waaw mu garanti te itam ñun itam ki suñu biir ñu defar seetaat suñu toogaay ndax booy laaj dara ba jot ci alimu da ngaa war a mat la nga doon ñun secteur privé Sénégal nañu organiser waat jéem a roy ci ñi nga xam ne ñii ñoo jógee bitim réew di ñëw di investi senegal gis nga Sénégal euh, bu ñu bëggee réew mi euh, état li muy diggee mu di ko man day yem fi mu war a am war a yem secteur privé yam fi mu war a yem ñu conséquer seen effort état mënul jaay du jënd su diggee ne dana wàññi prix itam su fekkee ne concerté wut ak acteurs yi koy def du ko mën a def te ñun bu bu ñu bu ñu concerté woo ak ñun lañ koy digal mooy wàññi bi. comme waxoon na ko danañ ko ci gunge ñu xool naka la ñuy waxtaane ak moom loolu laaj bi ma laajoon sànq te tontu woo ci mais ceeb ceeb bi waaw di déwlin gi hmm. ak soble seek ki nga xam ne moom lañ moom la ñu naan denrée de première nécessité comme taxe hmm. déjà teg boo ko fële de côté fan yoon la ban yoonu la ñu war a mën a jaar ba loolu wàññeeku doon li nga xamante ne dey gën a oyof ci euh, ñi neew doole dans un premier temps comme que moom publié na ko ba ñëpp di ko dégg mënu ko am lu dul mu wàññi taxe yi parce que yi nga filim yëpp dañ ko jëli ñu ko fii te loolu laay jooy toujours il faut que ñuy bay di dundee suñ ko defulee lu ñu mën a def alimu dañuy nax suñu bopp mënuñoo fexe ba li ñuy jëndi ñu da ko jëlee bitim réew commerçant bi bu demee jëndi marchandise banque am jox ko xaalis wala mu toppatoo xaalis dem jëndi ko ñëw bu doo dédouané TVA bi di ko ci topp nga xëy xëy na ko dañuy wàññi mënu nekk moom la mën a def mooy mu wàññi ay taxam loolu mën na ko def comme que ñëw na te li mu diggee war nañ ko ci jàppale mu nekk mu wàññi ko may wàññi tax dafa am fu mu yem ñun liñ ci man mooy suñu waxtaan ak moom suñ marche bénéficiaire danañ ko def nekk patriote parce que aussi bu ñu wàññul marche bénéficiaire bi dañ koy def kii li nga xam ne jàppale réew mi parce que dafa jiite réew mi waaye appelé wuñu ci nii li mu bëgg ci réew mi rek lañ ci bëgg su fekkee ne woo nañu concertation bu large alimu li nga xam ne moo nekkoon suñu marge danañ seet luñ ci dindi. mais est-ce que justement ci marge bénéficiaire boobu doo leen des fois euh, euh, léeg-léeg ëppal parce que boo xoolee ci grande surface yi boo demee nga comparer ñaari produit da ngay gis des fois différence boutique du coin ak euh, peut-être grande surface jaroon ñooy lim tur. Mhm. nga gis des fois différence de trois cents francs des fois même plus loolu est-ce que loolu tamit yenoon na maanaam. xam nga xam nga moom loolu politique la boo xam ne bii boo dul jaay ko xam. wàññi ay cent franc deux cent franc grande surface yi bu ñu koy def seen politique la rek te loolu bu ñu den doon boutique tey maa yow may jaay juróom ngay jaay fukk damay jaay ba jeexal jëndaat di jaay te doo jaay. grande surface dañoo dañu dañu dañu dañu maîtriser li ñuy def parce que loolu ñuy def politique la xam nga ñun bi ñu daan euh, nekk ci commerce dëgg dëgg dëgg dëgg daanañ jënd benn marchandise boo xam ne bii daanaka dañ ko jaayee dañ ko jënde woon lu ñu ci jublu mooy muy bari. su fekkee ne bii damaa xëy jaay fukk jaay mille yow nga xëy ba ngoon jaay jaay ñett sama mille yooyu bu amoon benn dërëm article bu nekk dama lay ëppale loolu secret la ci ci wàllu njaay doo ko def waaw ma ne loolu de donc ma alimu euh, xam nga li ñu tax a toog fii muy daara def leen xam na mooy problème bi bi nga xam ne moo posé dafa naqaree yore la majeure partie ñu koy jaay da gis benn ngandam boutique muy dox ba yàgg mu xëy xëy daanu tuuti lay am ci marché xam nga sénégalais dafa li nga xam ne moo ci nekk daal mooy ne concerté wu ak acteurs yëpp su concerté ak ak acteurs yëpp danañ ko woon bunt boo xam ne boo ci jaaree prix yi mën na wàcc mais moment bi ñu toll dafa doy parce que ceeb bi nga xam ne moo ëpp lu ñuy consommé muy indien yeebu Inde bi ñoom bi nga teg teg teg seen frontière wax na ñoom li ñuy baykat doyatu leen dañ koy dundee kenn mënul ci loolu dara état mënu ko dara kenn mënu ko yàlla état mën a dafa mu dimbali ñu te gouvernement bi ci bopp moo tëj frontière moo ko tëj te ceeb boobu moo ëpp ci li nga xam ne moom la Sénégal yi dundee parce que moo gën a yomb daanaka li ëpp ci nit ñi ñi moom la ñuy def pomme de terre ak soble si nan ngeen ci man loolu loolu fii lañ koy bàyyee ci lu bëri fii lañ koy bàyyee ci lu bari mais soo gisee pomme de terre bi ñuy bi ñuy jëlee ak soble mu gën a yomb mooy li may wax ci état parce que taxes yi moo seer ci baykat yi gis nga bu ñu alimu lenn rek moo nu mën a dimbali ñu génn situation bi li ñuy bay ñu di ko dundee maanaam état dugal ci loxoom àll bi ni mu yaatoo mu fexe ba ay forage nekk ci àll bi mu def euh, mu xeer ñëpp ci ñuy bay. mais yéen waa secteur privé aussi doo leen dugg ci mbay moomu. Euh, ñu ngi ñu ngi la majeure partie ñi ci nekk. Mhm. dañ ko publier waaye daanaka fu ñu jub la gis nga inaa ko weesal ma delsi ci suñu côté. Mhm. ñetti at yi at mënu yaa nga gis ñuy def. bay dundee acide économique bay dundee. lan ngeen di bay yéen concrètement. sunu membres yi di ñuy bay. Mm-hmm. man nag man man particulièrement man euh, boo nee bay xam nga man ko ragal mbay laa ba ma nekkoon ci àll bi daan bay bu ma nekkoon ci àll bi daan bay ma wax naa lan lañ def su ma seenee oto buy dem tànk demut du ma bayeeti ndaxte man boobu sama xel nekkul ci li may tool yi sama xel ku ma romb rek la sama xel nekk ci moom man personnellement dama ragal mbay man waaye ñi nga xam ne ñoom lañ jiitee ci kuréel yi am na ci ñoo xam ne ñi ngi ñi ngi ndar ñi ñi ngi waalo ñi ngi fépp di bay pour bay lan la majeure partie suma suñu section yi nga xam ne moo nekk ci booru waalo ndar ku mel ni Babacar Ndiaye gis nga li muy bay foofu ci ci diggante pomme de terre ak soble ak li muy bay ci paste ak yooyu toolam bi mu am foofu sax moo nekkoon échantillon ren bi PM di def visite yi toolam la demoon ñu ngi dugg nañ ci mbay mi mais mbay dafa am mbay bu état bëggee mbay mi mu doy sëkk ba kenn duti jéggi daf ciy dugal loxoom di ñu jàppale ci ay subvention di ci lu mel ne engrais banque yi nga xam ne. ñoom dañ lay ne ñu ngi koy joxe chaque année euh, subvention. non euh, euh, engrais machines yi ñu koy joxe mais. xam nga xam nga man damay damay ragal toujours di wax loo xam ne day mel ni ci ay nit lay àgg hmm. wante bu fekkee na ci ña ñay bay lañ ko yóbbu. du demee noonu waaye dañ ci am loo xam ne dañ ko indi ba pare te du jàll ci ña nga xam ne ñooy bay ñen lañ koy jox du ma dugg ci loolu mooy li ma la wax am na ñoo xam ne ñuy bayuñu wante bu engrais bi ñëwee ak tracteurs yi ñoo ci ëppale ñooy bay loolu itam yaakaar ne le nouveau gouvernement danañ ci taxaw taxawaay boo xam ne euh, lépp lu ñu andeet itam ñeel baykat yi ñu jot ko en tout cas soble ak pomme de terre baykat yi nekk ci réew mi liñ ciy daj euh, ku leen jàppale tuuti dana doy ba nga xam ne duutuñu jéggi soble ak pomme de terre li ci des muy wàllu lu mel ni suukar ak yooyu benn benn société moo fi nekk di ko def muy si sucrière kooku ñu benn parenthèse à que kenn du ubbi si kum neex man nga koo def na nam ko defee mais xay na avantage yëpp. ci loolu ci loolu yàgg nañ parce que depuis 2012. ba léegi ñu koy wax dajeeg Macky Sall. Ah. am na la nga xamante ne. Ah. waxoon ngeen ko ceeg moom. waaw ah. ba nit ñi yaakaar sax xëy na les choses allaient évoluer que yéen da ngeen. soobu ci euh, marché bi. marché bi danañ ci soobu incha allah parce que aussi importation yorul am réew. usine boobu mu def bi mu koy def moment boobu avantage yi mu amoon dafa mënatul am jamono ju nekk nii. Hmm, am suuf am ndox am lépp hmm. xam ne daanaka dañ ko defal. Hmm. par titre euh, euh, gratuit. loolu daanaka amatul mais quelque que soit la situation nit ñi nañu fexee dem ci industrialisation parce que di ja di bay di lekk ba di ko exporter moom rek moo mën a yorum réew en tout cas le nouveau président maa ngi koy ñaan mu tase ak acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo yore dund bi waxtaan ak ñoom te bañ a tëb rek ne da koy wàññi parce que su koy wàññi loo xam ne li nekkul ci sa loxo soo koy wàññi te waxtu nañ waxtaanoo ña ko yore da koy diggee te doo ko mën a def. Hmm. Ah, du yomb kon de. du yomb contrôle bi. non non non du du wàllu contrôle contrôle service euh, de commerce bi fi nekk nii mi ngi def ni mu war a def de passage maa ngi gërëm vraiment. Euh, Karim Fofana. am na ñuy ëppal aussi ci prix yi ci quartier ci ci quartier yi. non non non nekkul marché moo fa nekkul rek yàlla xam ne commerçant yi li ñu daj dañu la war a féliciter bu dul woon commerçant yi bu dul woon seen ak jàmbaar euh, Aliouma da nga xëy dem marché doo gis doo gis nga Kuwait bi mu jaaree fii. bateau amul avion amul dara amul te fexe nañu ba musoo dem ci marché ci moment boobu. dëpp ak sa euh, lekkat ñibbisi ne aw ma lu ma jënd kon commerçant yi ñu jala firiti firiti lañ ay jàmbaar lañ yoo xam ne dina war a jàppale li nga xam ne moo ni dimbale daal ci lu ñu ñuy bay bay dundee ba di ko jaay jaayi feneen te bañ a ñëw rek ne damay wàññi prix lu nekkul ki sa loxo mënoo ko wàññi eh, gouvernement du jaay du jënd day fa war a concertation largement ñi nga xam ne ñooy jaay di jënd mu waxtaan ak ñoom laj fañ mën a yem mm-hmm. ñu wax ko ko la ca des mu wàññi ay taxe mais wàññi taxe am moment bu muy yem boo continuer di ko def rek mhm. su yàggee réew mi doo fay ses salaires jërëjëf loolu tam baaxul jërëjëf Cheikh maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam président bu UNACOIS Yeesal président national mi ma àndaloon ci waxtaan wi nuyu ak ziar soxna Naata Mbaye ak ñamu àndal ci TFM merci beaucoup merci beaucoup euh, Georges Déthié Diop ak euh, Mouhamed Ali Mouba ak seen gan di leen sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal kenn dal ak jàmm ak euh, programme rajo Futur Média ñu egsi ci ñaareelu pàcc bi ci kanam dinañ ànd ak Ibou Diouf.